wa shafiina wa sanadina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mushahidiya al awfiya bi talfazatikum al mufaddala télévision wal fajri nuhayikum bi tahiyati al islamiya hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw ba nu sante yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu àdduna ak ki nga xam ne budul woon ak moom yàlla du amal dara moom sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu dolli xéewal ak teraanga ci kawam ak mboolem saxaabaam ak i njabootam alayhi salaatu wassalaam bu ko defee ñu nuyu ziar bu baax a baax a baax mbokk yi nga xam ne waxtu wi fu mu jotee ñu bàyyi liñ jàppoon ñëw toog fas yéene àndante ak ñun wéttalanteeg ñun ci guddi ajjuma ji macha allahu taala ñu nuyu ziar bu baax a baax a baax mboolem surafa u yi nga xam ne ñooy sëti sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam yi te nga xam ne seen barke maam moo leen topp ji ñu di leen summil dàll di leen xormal ndax nag lépp seen maama ko waral macha allah nuyu ziar xalif généraux yi ñaanal leen yàlla seen jataay yàlla na ko yàlla yàggal bu nu demee Tiwaawan dañ fay fekk Serigne Babacar Sy Mansour ñaanal ko yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom njabootu maam Cheikhul Haaji Malik gépp radiallahu taala anhu bu nu fa génne jaar Touba fekk fa Serigne Mountakha Bachir moom tam ñu nuyu ko ziar ko ñaanal ko yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom mboolem njabootu maam Cheikh il Khadim radiyallahu taala anhu gépp bu nu génnee dem Kaolack dañuy dugg Medina Baye euh, Serigne Mahi Niass ma nga fa ñu nuyu ko ziar ko ñaanal ko yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom mboolem njabootu Mawlana Cheikh al Islam radiyallahu taala anhu gépp waaye bu nu génnee dañuy jaar lew nañ na seen fekk fa xalifa ba Serigne Cheikh Ahmad Tidiane moom tam ñu nuyu ko ziar ko ndokkel ko ñaanal ko yàlla jataay bi yàlla na ko yàlla yàggal lool yàlla wéral ko moom mboolem njabootu mam xalifa gi bu nu jaaree canaba shérif Bekay Kunta nga fa moom tam ñu ziyaar ko ndokkeel ko ñaanal ko yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu maam bu Kunta yëpp macha allah bu nu jaaree canaba dañ fay fekk Serigne Abdourahim Seck moom tam xalifa ba ñu ñaanal ko yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom mboolem njabootu maam Amari Ndak Seck gépp macha allah bu nu demee Louga dañu fay fekk jàmbaar yi maam Cheikh Oumar Dia Thierno Bachir Tall moom tam ñu nuyu ko ziyaar ko ñaanal ko yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak ak mboolem njabootu maam Cheikh Omar gépp ñu nuyu leen ziyaar leen bu ñu ñëwee ndakaaru ba Abdoulaye Thiaw Laye ngi fi moom tam ñu nuyu ko ziyaar ko ndokkel ko ñaanal ko yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom mboolem njabootu Seydina Limaamu gépp macha allahu taala mu ngi noonu bu ñu ñëwee ci kër gi nag fekk fi personnel bi nga xam ne ñoo ne ci kër gi tàmbalee ca euh, Cheikh Mouhamadul Hafiz Cheikh Niass nuyu ko ziyaar ko ndokkeel ko ñaanal ko borom bi yàlla na ko yàlla gën a kàttanal yàlla gën koo dëgëral fa baayam tegoon tànkam ci liggéey bi ma nga ca ba léegi ñu ñaanal baayam yàlla na yàlla yeesal yërmande ca kawam alaaji Sidi Lamine waaye ñaanal ko moom yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar bi jaayi sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam nuyu nag personnel bi ci kër gi ñoom ñëpp tàmbalee ci directeur Hadj Moustapha Diop tabarkalla waaye sunu sëriñ bi ci kër gi sëriñ Hadi Niass du ko fàtte nu ngi koy nuyu di ko ziar Oustaz Hassan Diouf moom tam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci kër gi taxawaay bu rëy ak liggéey bu am solo bi nga xam ne taxawu nañ ko ci xew-xew yi ci réew mi yëpp la ba macha allahu taala ñëpp di rafet rafetlu liggéey bi yal na yàlla fay leen moo xam technicien yi la moo xam caméraman yi nga xam ne dañuy wàcc sur le terrain di daw di daj lu ne ngir dara bañ a ump nit ñi ci liy xew ci réew mi ñoom it yal na yàlla sàmm leen leen bi jaahi sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam nuyu nañ rek mboolem koo xam ne yaa ngi xëy mbaa ngay gontu mbaa ngay fanaan ci kër gi ñu ngi lay ziar di la ndokkel di ñaanal yàlla mu sàmm la te aar la nuyu nag équipe bi nga xam ne ñoom la ñuy àndal alxamis bu jot macha allah njëkkee ko ci sama binom bi euh, alaaji Souleymane oustaz tabarkàllah oustaz Souleymane Diaw borom Thiès nga xam ne macha allahu taala ni leen koy waxee fan yi ni dëkk bi tëddee moo tax léeg-léeg muy wuute jataay bi waaye nag euh, nee naa leen bu ko jëmmam wuutee xelam ak xoolam du ci dañ ndax ñu ngi koy ànd di ko waxtaane macha allah yal na yàlla sàmm ko te aar ko defal ko tawfiq incha allahu taala ñu ngi am njortu sax ne incha allah léegi dana dellu siwaat ànd ak ñun ci liggéey bi incha allah ñu ziar ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla waaye nuyu caméraman yi nga xam ne ni ma koy waxee toujours ñoom du ñu feeñ te liggéey bi ñoom la macha allah alaji Saliou Bey du sonn du tàyyi ma nga ne la taxaw macha allahu taala fu mu toll mu ngi fexe liggéey bi di jaar yoon yal na yàlla sàmm ko te aar ko Pape Samb moom tam ma nga ne ca caméra ba yal na yàlla sàmm ko te aar ko Ibou sama ndaanaan li moom it ma nga nale macha allah waaye Pierre gis nga ko toogaay bu njëkk bi lépp ngir fexe son bi ngeen di am mën a jaar yoon mën a rafet macha allah yal yàlla barkel ko ca kaw ca régie ba na nga fa am mbaalo am di ak Cheikh Tidiane Diop di ñaan ñoom it yal yàlla sàmm leen te aar leen tey nag na ñuy def guddi gu spécial ku ne xam na ne ñu ngi ci weeru rajab waaye toll ci ci bis bu am solo ci weeru rajab muy bisub ñaar fukk ak juróom-ñaar nga xam ne bis bi taarixu lislaam da koy bàyyi xel waaye Sénégal it taarixam da koy bàyyi xel ndax li tax taarixu lislaam da koy bàyyi xel ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam defe woon voyage am bu rëy boobu indil ñu seri ci am bu rëy boobu di suñu julli juróom yi nga xam ne moom la ñuy julli xam naa loola ca kanam dinañ ci gën a ñëw waaye li ma ne réew mi daf ci am taarix mooy ku ne xam na ne Euh, euh, borom bayre bu rëy boobu nitu yàlla bu siiw boobu nitu yàlla boobu nga xam ne dinaay wax ne ku ku ne mën ngaa am sëriñ ku ne mën ngaa am foo jébbalu waaye bu situation critiquée sam xel ne lapp ca moom muy cheikh mouhamadul fadal borom yaa fadilan fadalahul xalaaqu yaman man bihi faaraqani al amlaaqu jàmbaar ju mag jooja nga xam ne bis bii bu ñëwee ci réew mi danu koy bàyyi xel danañ ca gën a yaatal moo tax tey ñu seeti ñaati ñaari jàmbaar yoo xam ne inchaa allahu taala bu ngeen àndeek ñun seen xol dana sedd da ngeen bëgg tabarkalla alaaji Moor Kayre Njaay mu ngi nii jóge ca Mbuur ñëw fas yéene ànd ak ñi nga xam ne ñoom la àndal war leen a bégal insha allahu taala waaye du ca wet ndax sama jàmbaar jaa ngi nii ci wet gi moom it tabarkalla maam Cheikh Ibra Samb akasa moom tam mu ngi noonu toog macha allah insha allahu taala tey di ngeen am jataay bu ala dawme ni ko Serigne Mansour daan waxee waaye bala may sori ma nuyu leen ñu daal di door dugg ci liggéey bi incha allah Serigne Mor maa ngi lay ziar salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Mouhamed maa ngi lay delloo nuyoo di la delloo ziar. waaye ci yow képp ku nuyu képp koo xamante ni rek fekk naa ci barab bu sell bu tëdd bi di ñaanal nag bala ñoo wax dara borom barab bi allah ji ci di la mu topp ko lool ñaan yàlla na yàlla dellu ay leeram. suñu borom yàlla na ko tàbbal ci àjjana yi gën a kawe barke Cheikh Khadi di siyaare bu baax Oustaz Souleymane ni ñu ko waxee insha allah ndokkeel bu baax nag eh, sëriñ Cheikh allah eh, kilifa kër gi na ni tudd yóbbaale nga yóbbaale ko defee ñoom siyaare bu baax Eh, macha allah Cheikh Ibrahima Samb li ñu bokkal plateau bi yaa lool dëgg yàlla di seet di ko jox wàccuwaayam ak ñu ma àndal ñëpp di saari ñu ma àndal di kuréelu bu baax ñun ñëpp di saajan saar sëriñ Baye sëriñ Tabay sëriñ Moussa Sey sëriñ mooy suñu ménagère ak sëriñ Cheikh Taw di leen saare bu baax macha allah di saare képp koo xamante ni rek yaa ngi toog jàkkaarloo télévision wala Fajri TV di ñu seetaan ci àdduna foo mën a nekk waaye rawat na Sénégal waaye rawat na ngir géej rafet na ni mu ko waxee alaj loo ndaam nga xam ne moo coordonné lépp macha allah moom tam ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla sàmm aar ko maam Cheikh Ibra salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw sant yàlla julli ci sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam di sant suñu yaakaar tey ëllëg muy cheikh Ahmadou Khadim Rasoul mhm. di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal xalifa généraux yi fi nekk yaa mhm. rabbi te di am mbégte lool ci dalal gi mhm. loolu la ñuy ba dëkkub Serigne Mor Sambu ñaanal fa Serigne Hassan Sambu ba nga xam ne si moo fa nekkal Serigne Mor Sambu yàlla saa borom yàggal ko fi lool di sunu wayjur di sunu Serigne di sunu lépp mbooleem njaboot ko yàlla saabaram dafa leen jàmm ci barke alxuraan ci yàlla def ci réew mi jàmm di ziar baax alaaji Mor Kayre mi nga xam ne si sànq yëngal na ma wax dëgg yàlla macha allah di ziare gaa yi ma àndal waaye maa ngi nuyu ñi nga xam ne si ànd na ñoom ku ci mel ne Seydina Jibril ak Seydina Mouhamed ak Serigne Keba Loum ñoo ànd jógee ba Kër Massar di nuyu waa Kër Massar gépp nag di yemale foofu kàddu yi ba ca kanam rek tabaarkalla mu ngoog xam naa Jibril nag du ñàkk ca kanam dana moom sama mag la démb tey doog a ñëw macha allah yal na yàlla barkeel barke yonent bi alayhi salaatu mu ngi noonu waaye ma ndokkeel ziar nag ci guddi gi jàmbaari sëriñ Touba ji Cheikh Fallou Diop Gabon nga xam ne du sonn du tay ci liggéeyal Cheikh Khadim radiyallahu taala anhu nee naa ko lebal nga ma bor boo xam ne mënatuma la koo fay ci àdduna mooy wane le ma ak yonent bi alayhi salaatu salaam kon Serigne Fallou Lo Gabon maa ngi koy ndokkeel maa ngi koy ziar waaye di ziar doomam ju baax ji Serigne Khadim Diop mi nga xam ne moo koy taxawal ci léppam maa ngi koy ndokkeel di ko ziar sama yaay ja nga xam ne mooy sama eh, seexu màkk waaye di sama yaay tamit di Adja Yacine Diop di soxnaam ajaa Yacine Ndiaye maa ngi koy ziar bu baax a baax moom it ma nga foofa ca Touba waaye ziar sama wayjur wu tedd bi nga xam ne it moom la ñu àndaloon moom la ñu booleel boole ñu yóbbu ñu ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wa moom tam duñu ko fàtte suñu yaay jooju di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dolli wér dolli ko sutura Adja Penda a Pa Maguette Gueye maa ngi koy ziar euh, di ko ndokkel ndax xam naa ne tey guddi gi dana ci bég lool ndax moom liggéey bu réy bi nga xam ne dina koy liggéey ci kër gi macha allahu taala mu ngi noon waaye ah, sëñ Fallou Lo Gabon maa ngi maa ngi jaar eh, sëñ Maguette moom Pa Maguette sama xarit la sama wala sama goro la ndeysaan eh, yaakaar naa suma jëmu rakkam mu ngi sëy suñ biir kër Mbuur ah macha allah moom ma njëkk dalal fii Walfa Pa Maguette Pa Maguette maa ngi koy nuyu baax di la siyaar mu ngi noonu léegi bala ngaa dem da ngeen gisee insha allahu taala waaye sëñ Fallou Lo Gaydel moom tam ma ziar ko ndokkel ko moom it mu ngi fii ci noor Foire maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax macha allah di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gën a taxaw yal na yàlla gën koo aar yàlla gën koo sàmm gën koo eh, taxawu ci biir ak biti ndax léeg-léeg mu ne xoos xoos na ma Mouhamed ma ne ko la béyk mu ne ma jaar fi jël am na xoos yu fi nekk ma jaar fa mu jox ma ca xoos ya ah ma yóbbu ca kër ga tey jëfandikoo rek tabarkàlla bu ko defee ndax yooyu mën a ñàkk macha allahu taala xam naa ni muy def rek dañuy daal di dem ci liggéey bi alaaji moor mm-hmm. xam naa dama lay bàyyi nga ñëw fii mm-hmm.